noo ngi amaat mbégte teewaat fii fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xamante ni moom la ñu duppee karaamati xattu yi te ñu jëmee ko ci mbindum Serigne Touba ak taalifam xasidaam yi ak jagle yi nga xamante ni moom la ci suñu borom def tey ji nag ñu am gan gu màgg gu tedd goo xamante ni naga daaw àndoon nañu ak moom ñu waxtaane xasida gu mag gi nga xamante ni mooy jaalibatul maraaxib waaye balaa ñuy àgg ci présenté ki nga xamante ni moom mooy euh, suñu invité ñuy nuyu tey ziar bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacké nu Cheikh Mouhamadul Bachir xalif général kullu murit ñaanal ku mu yàgg fi loolu te wér ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ziar yi tamit mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy ëxlu xasida te di bëggee xasida yi rawatina xasida yu mag yi nga xamante ni ñoom la ñuy fas yéene àndal tey jii tamit ñu tànn benn xasida goo xamante ni yaakaar naa ni dina yitteel jullit yépp dina yitteel képp kuy gëstu ci wàllu xam-xam dina yitteel murid yi dina yitteel yi tamit kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy kuréelu xasida yi ñu tànn xasida gi nga xamante ni moom mooy nooru daara yi ni nooru daara yi ni di xasida gu am solo xasida gu rëy gu bari ngëneel goo xamante ni cheikhul xadim moo ko taalif waaye ngir waxtaane xasida googu nan la ko sëriñ bi taalifee ci yan anam ana lan la ci dëxëñ ci ay ngëneel loolu la ñu fas yéene seq jataay tey jii ak suñu sëriñ suñu xarit ñëpp miin ko ci télévision Touba TV muy sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Basiiru Moor moom sëriñ moom soxna moom Maam Moor Jaara waaye sëriñ Abo Mbàkke moom soxna Jabaara Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Touba Xaadim Rasoul yaakaar naa ni euh, ku mel noonu war naa mën a waxtaan ci xasida yi waaye ànd ak loolu lépp yi tamit mu gëstu jaar fi mu war a jaar ba géeju lool ci wàllu xam-xamu diine rawatina yi tamit ci wàllu siiraag lu nekk ngeen di ko dégg ci jataay yi nga xamante ni moom la ñuy amal ci yoonu murit ba ci jataay yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee sëriñ bi moo xam muy alwafa ca daarul moxti moo xam muy kër sëñ son bi boo xam daal muy euh, lépp loo xamante ni rek jataayu xam-xam la ñu di ko amal ci dëkk bii di tubaa wala ci biir yoonu murit sëriñ Abo Basiru Moor am na fa cër te dina fa def taxawaay yoo xamante ni ñu am solo la kon sëriñ bi ginnaaw bi ñu amee mbégte dellu siwaat àndaat ak yow jataay bi xam nañu ni sa waxtu xat na lool waaye nag saa bu ñu sàkkoo ci yow jataay yu mel nii nga ànd ci ak sawarte may may ñu ko waaye tamit dañuy xam ne rek loolu lépp yi tamit bëgg a euh, servir l'islam bëgg tasaare xam-xam loolu rek moo la ci tax saa su nekk nga ci taxaw taxawaay bu am solo loolu ñu ngi ciy bég bu baax di la ci ñaanal nga am ci ngërëmu sa maam yu baax yooyu nga xamante ni moom laa tudd te lislaam rek taxoon leen a jóg kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi ñu doog a dugg ci waxtaan wi bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Jibril ñoo ngi lay delloo nuyoo di nuyu bokki jullit yeeg bokki taalibe yëpp. ni nga ko waxee di tàmbale lépp ci ki fi nekkal Serigne bu mag bi. di kilifa ak yoon wi di Serigne Mountakha. di ko ñaanal sunu borom dool di ko jàmm te dool di koy ndam. di nuyu bu baax. waa waa waa waa kër gi. waa Touba TV tàmbale ko jëwriñ Serigne Mbacké yu ba ba kër gi daj ngi dañu yëpp di ziare ñëpp di ndokkeel ñëpp itam mhm. ak jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Abo kon nag dañuy daal di dugg rek ci xasida gi tey jii ñu tànn xasida ak Nuuru Daarayni lan nga ñu mën a wax ci xasida gi balaa ñuy tàmbali waa kay jërëjëf jëmmi naaw jataay bi day jataayu mhm. mhm. ne mbóotam léppam hmm. mooy xasaayid yi hmm. sunu borom defal ko ci itam loo xam ne gisuñ gisuñ fu mu ko def hmm. ndax gannaaw alquran daanaka téere booy ubbi di ko jàng mu deg jaamu yàlla bëriwut ci ci ci ci ci fi koy gis man maanaam di jaamu yàlla ba noppi man caa amee nag loo xam ne mënoo koo amee ci lu alquran ak xadis ne ko suñu waxee ne faaqat gayra alquran wal xadis coono boobu. xasida itam fa mu jëm dañ fa mu jëm mooy rek fa sëñ Tuubaa jëm. sëñ Tuubaa daf nekk lillahi war rasuli wal kitaabi kulli yiti xaba bila atal ci yàlla la jëm ànd ak alquran ak yonent bi. waxaat ko ila allahi bil qurani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbi xaali kon ci yàlla la jëm foofee mu jëm nag. wala xasaay di jëm. génnul yàlla ak yonent bi. nga xam ne ak bàkka lay doon ci sunu borom ak ñaan ko ak sant ko kañ ko mhm. waaye di di di di julli ak a tàgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wal xasaid mhm. lépp nag dellu ci jaamu yàlla mhm. mu ne wajaxal xuruufi kullaha ibada sama sama araf yëpp nañ ko def ñu jaamu yàlla ndax lépp jaamu yàlla la waaye mu ñaan borom mi ne ko xase yi nañ ko def ñoo xam ñu mel ne dañuy def daxawa ci lislaam dañuy def daxawa ni ko ni ko sama sa maanaam ni ko sama làmmiñ di defe nga xam ne daa wax na ko sama mbind defe maanaam ni may demee dafa ni may defee daawa ci sama lan ni na nga ma def sama mbind muy def mu nekk daawa ci man muy def wajaal qilaami wa midaadi wal lisaan daayatan li dil jamaali bi xisaan waaye nag bi xisaan moo mooy mooy bil mawaadati l xasana borom dafa dafa waxoon borom yonente bi ne ko udwa ila sabili rabbika bil xikmati wal mawaadati l xasana nay nay woote jëm ci yàlla mooy xasaa yi riwaaye nag na ko defee ci ci ci ci ci ci ci masla ak lu rafet ak ko suñu borom digle woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xasaayid yi itam lépp di njariñ wax na ko boppam ne li yaalama kulla man taallaqa biya annani tawajjahtu ila allahi tabaraka wa taala bi tawaalifa takunu fiha jamiu almuslimin képp ko aju ci man na xam ne jëm naa ci yàlla ak ay taalif ak xasaayid yoo xam ne njëriñul jullit ñi da nga ca nekk ci seen biir njëriñul jullit yëpp nga ca jullit yëpp moom nañ mën nañoo jëriñoo xasaay bi ndax noonu la ko nafu newul nafaul muridin wala nafaul nafaul kul nafaul kul liman taallaq bi mhm. waaye wala wala nafaul mutaallaqina bi maanaam mhm. daf ne nafaul muslimin takun fiiha mhm. nafaul muslimin jariñ jullit yëpp ci kon ku ku bëgg a jëriñu parce que njëriñ moo moom ñaan borom mi ne ko na ko def muy ngën ji ngërëmam ma akbar ridwan waxam bi xatt ya rabbi indaka akbar ridwanin wa inda jundika yow ak ñi nga am ñëpp na nga def sama mbind muy ngërëm li gën a màgg ci yéen te te suñu borom wax na ci alxuraan war dëgg waan mu ne allahu akbar mhm. ngërëmul yàlla moom dana fekk dara feetul ko kaw kon ci wàllu ci mhm. ci boppam nga xam ne lépp moom xasida gi ak yi ci des yëpp la cee tënk loolu mhm. jërëjëf jërëjëf kon nag euh, loolu leer na ci ouverture bi ci wàllu xasida waaye sëriñ bi ni mu tënkee Euh, ay xasidaam ak lim jaayante woon ak rasulullah sallallahu alayhi wax ni juróom benn weer yi euh, xaajale at mi euh, tey ji xasida gi buñ ko doon jël maanaam yow ci ban giir nga koy boole ci diir yooyu ñaari xaaj yooyu sëriñ bi xaajoon at mi te jagleel ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gi waaw ko waxee mhm. sunu moo yoroon suñu sëriñ bi mhm. dafa joxoon ak dundam yonent bi di ko di ko jaamoo boromam nag donc liggéeyal yonent bi di ko jaamoo boromam dañ ko waxee mu xaaj nag euh, at ñaari xaaj juróom benn weer yi mu ne te ko ciy tàgg yi muy julli ci moom man ko waxee ci ma waxee ko salaatu sitte marxi sitte taati hibbate maatisa yi bu ko defee waxan wax na wax na ko itam juróom benn weer yan juróom benn weer lay tagg ak yan juróom benn weer lay julli wax na ko hmm. ci biir xasari nuuru darayni gi wax na ko ci alalladi madaxtu min rasil xurum li saadisi shuhuri wa huwa mankabu nee na di ñaan yàlla mu julli ci yonante bi nga xam ne tagg naa ko ci li tàmbalee muharram ci laa koy tagg ba mujjug juróom benneelu weer wa muy jumada thaniya te muy maamu koor njaal bee nag muharram ba mujjug maamu koor mooy weeri tagg yi واخنا يتم على يلي المختار خير الصلوات من رجب للختم دون هفوات وارلونا اي جولي تيران تيبي واخنا رجب لا يتامبلي با مجوك اتنيو دي دي مجوك تبسكي كون لي تامبلي رجب دي نتايكو با مجوك تبسكي ñoy ati salawati day melni qasida gi kon dina ru dari ñaan ndax qasida salatu la qasida julli ci yonent bi la kon da ngay dal di xamne ci juróom ben wër yoy la ko tali ñu ñu mujjé mooy ñaan ñu moy nday koor ba ba ba tëbaski moy xasse rek julli kon lool rek di di lu di lu mata taxaw julli ci bokkum rek na julli ci yonent bi rek beneen téere boo ko gisoon ak foo mara gissé julli ci yonent bi dafa am dafa am solo lool Sëñ Tuubaa wax nako neena amma salatuna ala nabi muhammadin khayr bani lu ayi fa huwa ajallu ma tamassakta bihi baada adaa'il fardi fal tantabi mhm. na nga xam ne julli ci yonent bi lépp looy def di ko jaamoo yàlla gannaaw yim la gàll farata yi mhm. moo ci féete kaw mhm. moo ci gën a màgg moom julli ci yonent bi nga xam ne kon da daal di dégg ne kon xasaayid yii Sëñ Tuubaa di julli ci gannaaw gannaaw gannaaw yàlla yi nga xam ne dala ko gàll moo ci gën a màgg kon mu ne qad nassa cheikhuna sanusiyu sharif radiyallahu anhu wa rabbuna latif lii ma wax nag imaamu sanusi ma ko wax نحن نينا بأنها تغني عن المربي لجذبه الفتى لحب لحرب الحب نينا لكو ورا الموي إمام سانوزي نينا صلاة على النبي ممرك ما من الدعي ولي سر التربية من قتى جابو مانا فلا سر التربية منو أجرم أجرم نح نينا دي خدي جام بجام بقول مو جنة جاي برام صلاة على النبي جنة ليجي نك كيان خامون مطوع لا تجي تومي دقيلو ليالا سنو بمرفا دقيلة نينا نيجي لي كيان تبي yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa mhm. sallimu taslima mhm. kon julli ci bi moo tax ñu ne dundu nit ki moom farata la ci benn yoon mhm. a farata dundu nit la ci benn yoon mu julli ci yonent bi ndax yàlla da koo digle lu mu gën a bari nag ngenee lay kenn xamul lu mu toll la ci jiitu mooy benn bi mooy loolu la ci jiitu mooy ngëneelul jëfee liggéeyul yàlla la ca topp mooy ngëneelul yaa ngi yaa ngi dëppoog yàlla lu muy def jaam bi bu bu buñ ko laajoon lan lan lan la la jaam bi mën a def. ànd mhm. ànd ak su ànd koog sunu borom. Mhm. mooy julli ci yonent bi. Mhm. sunu borom nee na. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nee na moom ak i malaakam dañuy julli ci yonent bi. kon mënees na wax daanaka benn boobu. benn boobu waaw la nit mën a def nga xam ne moom moog suñu borom ñooy ñooy ànd di ko def. muy julli ci yonent bi. Euh, julli julli yàlla ci yonent bi nag yëkkati le ko ak kañ ko bu lee julli jàmbe nag ñaanal ko lay doon ak yàlla yëkkati yëkkati ay ay ay ay dara jàmm baneen bi nga xam ne ngëneel la julli ci yonent bi mooy képp ko julli ci yonent bi dañ la yëkkatil fukki daraja mhm. fukki daraja euh, faral la fukki ñaawteef fukki bakkaar maanaam mhm. loolu rek mooy tax jàmm bi texe jàmm bi bu ay tooyaa ba mu jox ko ay ñaawteefam wàññi ko loolu moo koy moo koy indil texe ëllëg mhm. euh, bokk na ci ngëneel julli yonent bi itam day waral am ram moom ëllëg day waral yonent bi rambu ëllëg mu am ram ram ram julli julli bii julli ci moom da koy ramu bu ko defee julli nga xam foo mën a jullee ci yonent bi rek mhm. leneen yooyu mën nga ko am waaye nag rawatina na nga jullee ci yonent bi ci xasaayid sëñ Tuubaa yi mhm. ndax sëñ wa moom daf ne xasaayid yi faaqat xasaayid al kiraam mhm. li mu bind moom moo féete kaw lu keneen bind ci ci nit yàlla yëpp nee na samay xasaayid moo féete kaw xasaayid yi ñu baax ñëpp wax na itam ne ne ne ne lu dul alxuraan ak xadis wax yàlla ak wax yonent bi sama samay wax a ko féete kaw waaw man sëñ Tuubaa wax na ko nee na nee na itam wajal kitaabati wax na ko ci biir téere bi wajal kitaabati ila allahi ahabu min kulli xatin wa ila almaahi al ahab na nga def sama sama mbind mu gënal la mbindum keneen te sëñ Tuubaa dafa wax ne lépp lu mu bind moom wax ko nam ko bind ne la amee nee na suñu defal na ko loolu wa annahu jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma katabtu nee na sunu mu def na lu ma bind rek na ma ko bind ni la amee loolu loolu sëñ Tuubaa wax na ko boko defé nak nu nu ñew ci tour yi jëmi tour nu mu dal tour yi moy nuru daire yi ci khidmat hami an al hami نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما لا يرب نياري تري لكو تخجك موي لجي يلي يونان تبنى فر نياري ñaar ñaari gàcce yi. Mm-hmm. bu ko defee mooy far gàcce ñaari kër yi ba mu ko wax wax nañ ne sëñ bi mos naa wax na nag ne nu ngeen koy firee nooru dër yi leeroog ñaari kër yi nu ngeen koy firee. Mm-hmm. ñu ne ko xanaa àdduna ak àllaaxira. ma mm-hmm. leen déedéet ndax àdduna du kër. ma ne lu mu ci jublu ci jublu mooy leer goo xam ne maanaa li mu jublu leeroog ñaari kër yi mooy leer goo xam ne dalay tere dugg sawara di la xëcc ba duggul la aljanna. nee na ndax mu ne. àjjana ak sawara ñooy ñooy ñaari kër yi hmm. kon nuuru daara yi nii mooy leerub ñaari kër yi mu a mooy ñaari kër yi àjjana ak sawara la ci biir hmm. leer goo xam dalay teree dugg sawara di la xëcc ba dugg la aljanna am na moom daal àdduna moom yoonam nekk ci woon waaw <laughs> moom <laughs> ndeysaan te nag barkeb sëñ Tuubaa moom li sëñ hmm. Abdou Lahad waxoon waaw ndax ne woon li ngeen gis ci àddina muy feeñ ci barke dafa mel ne wane woon na mi ngi mel ne mhm. ndab li dañ koy duy ba mu fees rek muy rogalaat muy mhm. rogalaat di tuuru mooy liñ gis ci àddina waaye la taxoon ñuy ñuy duy ndab li mhm. dara jóge ko ci moom dara jóge ko ci kon kon loolu mooy wane ne moom barkeem barkeem barkeem a yaatu ba feeñ ci àdduna mm-hmm. teewul nag barke bu yaatu yi mooy tax moom mm-hmm. loo ca laal ci sëñ Tuubaa ci xasida yi lu man mën nga caa amee barke bu àdduna mm-hmm. waaye la ko a nga xam mooy li rogalaat na ko mi ngi wax Cheikh Ibrahima ne ko bi muy jaayanteeg moom dafa mel na ñaar fukki fan yi sax xanaa du sori. waaw dama tey la sax. waaw mi ngoog ñaar fukki fan yi koor gi. Mhm. nee na sëñ Bassirou daf dafa sëñ sëñ bi dafa sax ko sama yitte du àdduna. Mhm. yàlla la ak kërug ëllëg. Mhm. nee na sëñ Tuubaa tegal ko ci ne ko am mbaar sax bu ko séntu ci àdduna bu ko ko fi séntu waxuma la kër ak njaboot. te gis nga ne. sunu borom ku defal teraanga Cheikh Ibra ci àdduna. loolu mooy wane na rek. li sëñ Blac waxoon rek barke buy ragaloon bay tur rek. Mm-hmm. waaye sëñ moom léppam léppam ëllëg la. dëgg saa ah, ah, waaw baax na naa la bàyyi nga àggale si tur ñu doog mm-hmm. waaw loolu sax si laa doon bëgg a ndax xam nga euh, wax nañ xasida gi tuuti ak yooyu waaye euh, jamono ji sëriñ bi di taalif xasida yi ak euh, xaal bi mu koy fekk ak yooyu yëpp day day am solo te day mel na i tamit day day day feeñ ci xasida gi waaw kay daanaka foofu laa doon bëgg a ñëw mooy jan jamono la sëriñ bi taalif xasida gi fan la ko taalifee ak ci ban xaal la ko fekkoon jërëjëf xaal bi moom moom boobu mu dem na ba sës ci borom mhm. ni maa gis ne boobu dem na ba sës rëkk ci borom ñu ci nuru deri ni jur Jurbel itam nañ wax ne fala te it nuru na ko ndax dañuy gis ci biir xasida gi muy tudd ati jaareem di wax sunu borom nangul na ko li ko tàmbalee asach loolu wax na ko lu bari naan qabiltani min asachin li bal sachi munabbihan fi daka amal la sachi asas mooy tàmbali liggéey bi. Mhm. jamono gannaaw moom moom moo antasali tuuti. Mhm. Mm, li ko tàmbalee foofu ba bal sas ba ba ba lasas. Mhm. nangul nga ma. ndax ati njaarim la. lasas yi la ñu njaarim. ba ba wam sas xam nga. kon ati njaarim yooyu mu ciy tudd kon wane wane njaarim la. am nañu wax sax ne ñaari at <clears throat> ñaari at la fi amaat ci mujj gi la kon daanaka. ci mujj gi mujj mujj. ataa def nooru daara yi. moo tax ñu wax ne at mi ngi ko taalifee xéewal yi bari woon na lool ci ci ci mm. yiw bi mm. ci bari nga xam ne kon xasida mm-hmm. yi barkeel ku mu barkeel yi gi itam jafe na ci nga gis gu toll nii mu toll mm, waaw ah, ni mu ni mu ni mu bëree mm-hmm. bari mm-hmm. mu yaatoo maanaam ah, waaw loolu loolu loolu it waaw loolu it yëm nañu si daal ndax xasida gi ni mu bëree dem ba mat ay trois cent yu mel noonu waaw loolu loolu lu tax sëriñ bi bindee ko noonu waaw loolu loolu moom mooy mooy mooy ginnaaw moom waxtu bu na day jëf ci kaw ndigal loo xam ne lu muy seq ak yàlla ak yonante bi hmm. mm, loolu mooy indi ay ay ay ay ay ay ay mbiram loolu la cay feeñ ci lu bare bari hmm. ab liggéeyam lépp rek loolu moo cay feeñ hmm. moom lu muy def rek da koy defee ci kaw diggan ak ak ak diggante yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay munaajaat lay doon yoo xam ne am na ca lu nit man a xam am na ca lu nit mënta xam mbuutam la diggante ak borom lay doon kon kon kon kon ci ci wàllu googu moom maanaam ati njaarim la day mel na itam mi ngi ko taalif diggante xam nee naa la. Mm. ati maanaam xasiday salawaat yi ngi tàmbalee rajab. Mm, mm. ba ba dul xijja muy tabaski. gi it mel na ne diggante rajab ak chaban la ko taalif. ndax dañ ci gis mu ko ci mu jëriñ ciy tudd. bu dee rajab bis mi ngi wax wa shadli allahumma fil fardi rajab. yaa man yaqudu li bihi aada ajab. yow mi nga xam ne wammatal nga ma loo xam ne moo gën a kawe ci lépp lu jéem moo ci gën a yéene. ma maanaam mu am lu muy seeral boromam. بانني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد ازال الكدا نغ نعم، ما سيرال تي بيسو راجب مانام تي تي فرد راجب الفرد بي راجب الفرد لي تخ نكو واخ راجب الفرد موي خمغا اشهر الحرم تي لا بوك ني تي ويري تا نيات نيات تي دانيو تيغالو موي موي موي دول العد دول القعده دول الحجه محرم ديغوتو بس كتاب بس كتاب خالد راجب خا وصو رك moo tax ñu naan rajabul fard rajabul wudi mm. moo tax mashhad li allahumma fi fard rajab mm. ci rajabul fard bi nag ma ci seeral ne gërëm naa la gërëm naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jiddan mm. gërëm loo xam ne nag amul amul amul fu mu yem waaye loolu ci njaal benn ga la ca biir téere ba ca mujj nag ci ci biir téere bi ñu gis mu ci tudd Chaabaan nag lu bari turu yàlla yoo xam ne sax da koy da koy da koy da koy da koy rabbe Chaabaan turu yàlla bu mel ne chine si tooy si baa bi ayin bi maanaam sirisitor yi ayin bi baa di alif gi naan laam gi mu indi tur yoo xam ne day tàmbale noonu def na lu mel noonu te bichir xam nga waaye fii def na ko fi lu mel ne nabbëhtanii tambiha shakirin alim baqin ilaya nafa qaada bi ulum nga xam ne shakirin ji mooy siin ji tur yàlla la alim ji mooy ayin ji baqin bi mooy baaga an nafa moom mooy noonu que maanaam xaaribi olum nga xam ne chaban bi moom la ko tënk maanaam ñett ñeenti turu yàlla yi di shakir alim baat mu nabbëhtani tambiha shakirin alim baaqin ilaya nafa maanaam ñeenteelu xaraf yi mu def ko nafa muy njëriñ muy noonu chaban bi dafa mel ne da koo leeral ci baydoo ca topp andi chaban ci boppam laka alaya shukru min chabana wa qablahu wa baadahu qurbana kon kon loolu wanaan ne kon diggante rajab ak chaaban mel na ne ci la ko tàddi liy wane na ci mujj gi la itam da ngay gis mu ci waxe waxin woo xam ne waxin wu daw yaram la day wane na ci mujjëm la muy di ñaan sunu borom naan ko nanga ma fayal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa an yajzil muntaqa xayran yafuq fi lxaali wal maali yaa xayra rafiq nanga ma fayal nanga ma fayal yonente yëpp wa an yajzil anbiya wal mursalin xayran kathiran wal tazid bil akmali nanga ma fayal saxaaba yi wajzil saxaabata xuyuran anni ak malaaka yi ma al malaa'iki ma am bil manni na na ma faayal sama ñaari wayu ak képp koo xam ne sama mbég mbégam la wa wa an najzi wa an najzi waalidayya wa jamia man sarrahu bishri xuyuran ya sañoo di ñaanal jullit yi maanaam ne ko ne ko wàllu yu yëpp ak xeetu yonante bi na nga leen na nga leen defal yërmande warham jamia al awliya wal umma wal takshif alladi atara min umma nga xam ne day mel na daal liggéey buy bëgg a jeex ci min ci catul liggéey ñi nga xam ne ña ña ko sunu borom defaloon tawfeex ñoom ñëpp mu leen tudd di leen di leen mm-hmm. di leen kii baxaru bi itam baxaru rajas la mm-hmm. xam ne xasaayit yi mm-hmm. xam nga am fukki baxaru juróom benn yoo xam ne arab yi ñoo ko tënk képp kuy mm. woy jël ca yoon mm. baxaru bi na baxaru rajas la nga xam mm. ne ci la waaye daana xasa yi ci bëri ci la leen waaye xasa yi salawaat yi rub daara yi ni jalibal maraaxib maxaatixul bishir taysirul asir xada ay xol fadail yooyu yëpp ci ci baxaru bu rajas ne sëñ Tuubaa ko la ko laa bëggoon a dugg sax ci euh, technique bi maanaam ni sëriñ bi tënkee xasida gi Euh, noonu nga wax tàmbali nga ci tuuti. noonu mu ràbbasante baat suñ borom yi na xam ne sëñ bi léegi-léegi tamit bu daan bu daan bind da ci wane lu bare day wane ak gi suñ borom waaye day wane ni maîtriser gu maîtriser langue beeg grammaire beeg yëpp nga xam ne ñaar ya lu xasida gi bare bare lu gudd gudd it daanaka du du du du wàcc benn yoon euh, baxru bi wala wala waaw lool yow lan moo la gën a yéem ci xasida gi ak nu ko sëñ bi bindee waaw boo jëloon sëñ Tuubaa dong ak xam-xam mhm. xam-xam kese teg fële baatin ci cërub yàlla bi yëpp mhm. day bokk ci borom xam-xam yi gën a mag wala mu koy rëcc kaw mhm. ba fi mu ne nii boo delloo ci mbind mi loo dégg-dégg arab da nga ca fekk baat yoo xam ne doo xam lu muy firi lu fekk delloo ci dictionnaire yu mag ya naa la jox misaal euh, docteur Abdou Lahad Sané nga xam ne moom ci ñi gën a maîtriser langue man a mën ngaa ne ci la bokk ci réew mi moroom xam-xam bu mag la sëñ Muntaxa sax da koy misaal ba naan daanaka Maalik muy dox la imam Maalik xam-xam parce que waxal na boppam ne bi muy bi muy firi xasida ak bax baxa nee na fekk na ci fanweeri kalima fanweeri baat ak nangam yoo xam ne xamut lu ñu tekki ci maajim yu mag yi dictionnaire yu mag yi ci la dellu soo ko soo ko soo ko xam ne kon xam-xamu sëñ Tuubaa donc moom ko doon seet baati arab la mm-hmm. baati arab la mm-hmm. kon wàllu wàllu xam-xam moom moom loolu nag moo fees dell xasida yi ci ci ni mu koy xereñee ak dan na daal loo ciy gis loo xam ne moom sa xel da nga ci xel yaar moom du am waaw du am ni mu koy xarak bi mu ci war a itam mooy ni mu koy rab bi xam nga boo gisee bi muy tàmbali xasida rek nooru dara nit yi dafa indi ay sunu borom maa ngi koy wax léegi yamuy digle ñu julli ci rante boo demee am na xasida yoo xam dafa day indi jëmmi aaya yi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي بريمتي جالب المراحل دكو فا اندي تي جالبن وهاري البشير نون دكو فا اندي تي جالبن دي وانا لي موي بغا ديف سون بوروم موكو ديغ في نك دكو دفا اندي ولا اي جي دكو راب تي بير دكو تي راب تي بير ام بوني الحمد فيم تابل قصيده الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي معلومه نعم، نعم. والفيلم ناس نبر ملي جولي تيونتي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي دادي جولي تي موم داب تي امر الاملاك ايضا بالصلاه ايضا بالصلاه عليه زائدا بذلك امر الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى الله وسلم عليه الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وما خير ولو مولى المهم معنا يا الله نجي جولي جرانتي بي تكي وامر ام لاك موي ملائكته يصلون ان الله ملائكته يصلون على النبي ويا ايها الذين امنوا صلوا عليه مو ثم الينا وجه الخطابه تكرمان وانفسا اطابا بامنو موني تي نون نك مو جيمي سي نون ديغلي مو لولو موي تولو يا ايها الذين امنوا نعم. صلوا عليه وسلموا تسليما لون داكو تي رب با داي تي بير مو رب جا حديث با يونتك دي واخني كو جولي تي مان بان يالله جولي تي فوك فوك لولاي واخ نكو تي بير يا من يقود لمسلم مره يا من يقود لمسلم مره علي عشرا قد تنير بر عليه عشرا قد تنير بر يوم ميغا خامني képp ku julli ci yonent bi benn nga julli ci moom fukk yaa man yuwassilu la bi ashri mia bi jaahi yaa man xama an sayyi'a yow mi nga xam ne ku julli ci moom fukk nga julli ci moom téeméer ni'ma shafi'un man alayhi mi'ata sallahtama alfan tafuuqu fi ata yonent bi baax na yonent yonent wi bu baax boobu nga xam ne ku julli ci moom téeméer sunu borom julli ci moom fukk jun junni waaw mu ne ko julli ci moom junni nag kon moom kooku moom àjjana mooy këram walladi liman alayhi alfa sallal muna wa fil jinaani yulfa wa fil jinaani yulfa nga xam ne kon mafhumul aaya ak mafhumul xadis la la la jël rabb ko ci biir maanaam andiwut xadis andiwut aaya ji waaye da ko da ko da koo rabb ci biir xasida gi kon defe naa mënees naa ki bu ñëppee nag dugg na ci biir xasida gi نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما waaw foofu laa bëgg dugg dégg ñoo ñu dugg euh, carrément ci xasida gi ah. ni ko sëñ bi woyee ni mu demee fi mu tàmbalee fi mu daanelee étape yu mu ciy jaar ah. ak euh, ngëneel yi nga xamante ni mi ngi ciy mi ngi ciy feeñ ah. ak yow nag sa jàngatuk bopp lan lan moo la yéem ci xasida gi di nooru daara yi waaw bi sëñ bi bind xasida gi mm-hmm. am na turu yàlla yu muy jëfandikoo xam nga mm-hmm. day day day ci xasida mi julli yëpp day tudd yàlla mm-hmm. ñaan ko mu julli ci bi di tudd it ay turu yonent bi mm. xasida gi turu yàlla turu yàlla yi mu fi gën a jëfandikoo xam lu bari andi na leen moom allahu mm-hmm. ak arrahmaanu ak arrahim mm-hmm. allahu mooy ismu taati arrahmaanu mm-hmm. rahim léeg-léeg mu mu boole leen allahu yaa rahmaanu yaa rahimu teg ca lam ca mu mu mu ber julli yonent bi andi waneen ba it wasalli yaa rahmaanu andi waneen ba it wasalli yallaahu yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa maliku ya quduusu yaa mukrim yaa léeg-léeg daal mu mu boole ko def ko benn bay léeg-léeg mu détaillé ko mm-hmm. nga xam ne léeg-léeg mu ber leen benn bu ne baytu boppam yallaahu wa salli yaa raxmaan wa salli yaa raxiim mm-hmm. mu def noonu léeg-léeg ñu ëpp lu leen booleel ña yeneen ñaari tur ëpp yu mu leen booleel mooy mm-hmm. ملك القدوس يبقى سيدك بارك لك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ودار لك بارك لك عندما الله رحمن رحيم تفمن تري أكبر تبير قصدك موي الملك القدوس لما أكبر لكم لما الله لك دايدا لتي سنتوا xekma bi muy defee lépp day day day teg ci ndigal ndigalul boromam mm-hmm. nga xam ne moom tur yooyu ndax xam nañ ci ñoom ay jagle yoo xam ne dañ koo jagoo wala waaw tur yàlla yi moom mm-hmm. asma maanaam asma wallahi al husna mm-hmm. boo ci boo ci boo ci boo ci maanaam yëpp sax yonent bi ne woon na sunu borom am na juróom-ñeent fukki cër juróom-ñeent yoo xam ne ku leen mokkal dem aljanna yëpp seeni ngëneel la benn bu ci na nag ci ci yii boo ci bu ci ne am nañ jagleeg boppam mhm. wante ñoo bokk lépp mm, mm. waaye bu ci na am nga jagleeg boppam goo xam ne moom mhm. goo xam ndax ndax guy bàkk yàlla mhm. malik moom mooy mooy bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir malik mooy malikul xaq buur bi nga xam ne moom buur dëgg la quddus mooy mooy ab sellaakoon koo xam ne dara lu dul noonu jegewu ko moom mooy mooy mooy mooy sunu mooy sunu borom kon ci bàkk yàlla bàkk sunu borom ci la ci la ci la ci la ci la jëmee tur tur yàlla yi muy jëfandikoo buñ demee ci yonante bi gannaaw Muhammad te turu turu mag bi man la na turu ci gën a jëfandikoo nga xam ne am na ko ci lu bari mooy turu muntaqa alhamdulillahi alladi yusalli ala nabii almuntaqa almusalli alhamdulillahi alladi yusalli ala nabi il muntaqa al musalli muntaqa bari na lool ci biir ci biir xasida ak بيمي نيان سونو nga نيكو nag ma faayal yonante bi mm. tuuf naa bayit bi léegi mm. muntaqa la jëfandikoo mm. waaw an yajzil muntaqa xayran yafal bi mu koy ñaan ne ko nag ma defal samay aada sama jëfi aada rek waxuma samay jaamu yàlla sama jëfi aada rek mu féeti kaw jaamu yàlla yi nit ñu baax yëpp mm-hmm. muntaqa la jëfandikoo wajaxal bi jaahil muntaqa aadati fawqa muna ibadika saadati mm-hmm. bi muy ñaan boroom ne ko na def itam na maam mu na ñaan yàlla mu julli ci moom julli koo xam ne day saxal mbég ci yonante bi muntaqa la jëfandikoo salli salata bi tuxallidul bushar lil bushar tan lil muntaqa bashar ah boobu de moom mbégte wuyu na suñ muntaxaa kon ñu koy ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wax dëgg yàlla moom foo ko fekk mbégte moomu moom bi bi bi laaj ñaan borom ne ko ma ma na jaamu la yonent bi la نيتو ديال المنتقى واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي على عجب بام بانني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد قد ازال الكبده وفنا كل لم تتك موي وانني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي سيعرفه وانني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السياده تدوم وانني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السياده تدوم انا وخادم المنتقى موي نيوفو بامي نيان بروم نكو نك ما ديفال سما دوندو موي سام القران دي سام حديث سام دينه منطقة لجفنكو وفي واجعل حياتي واجعل بجاه المنطقة حياتي رعاية القرآن بالآيات لكن مسر الحديث مسر الحديث والآيات هو جنة منطقة لفي جفنكو بمي نعم سنو برو من نكو نعم ما دفع السمك دنو جلدكم يننتبه وبتو ينفو منطقة لجفنكو طيب. واجعل حياتي بشارة للمنطقة إنه يسوى صاحبه ضوء التقى bacha mujj non la topé xassida gi lepp bacha mujj xassida gi day indi muntaqalu bari bacha mujj ñaan sunu borom nang ma nang ma def ci biir xolub yonent bi ak xolub saxaaba yi foofu muntaqa lañu fa di ko di ko yonent bi bu mhm. fii fu aadil muntaqa mhm. wa ida sihaabihi jaxal nii sururam daa jida mhm. kon dafa mel ne sëñ Muntaxa lam nattali woon ne sëñ Saaliw moo ko digaloon ne kon na ko jàngal nooru daara na ne kon am na ci am am na ci cëru cëru cëru cëru boppam daal la sëñ daana gën a jëfandikoo ci Muntaxa parce que gi itam xasida ak salaat ni ma ko waxee julli ci bi la mhm. mm, julli na ci lu mat téeméeri yoon ak juróom ñeen fukk ak ñaar mhm. boo jàngee xasida yi moom julli mhm. bi lu toll noonu lu toll noonu xam ne kon gis nga rek la mu waxoon ci sama la waxoon sànq boo jullee benn fukk fukk boo jullee fukk téeméer téeméeri junni junni moom njëriñ la gën a xam ko mu yem boo boo jàngee nooru daara ji junni ko yoon ak daanaka ñaar téeméeri bu ko defee julli yi muy julli yonent bi da ci da ciy lëkkale ay ñaan ñaan yoo xam ne yow mi koy jàng mm-hmm. na xam ne ñaan yooyu mën na la topp ñaan yu am solo yoo xam ne mën na sutu andi lépp waaye mën na sa cee andi mm-hmm. bokk na ca bu ne na na nga julli ci yonent bi julli yoo xam ndang ma ca defaaleel mm-hmm. ma ca defaaleel nangam noonu la koy wax julli ci bi julli goo xam ne nang ma ca defaaleel nangam mel na koo doon yónni rek demal barab sàng waaye yóbbaaleel ma mel noonu salli salaatan tatrorul xussaala nga xër nax yi tam naxul fasaad fasaada mm, mm. na nga ma na nga julli ci julli koo xam ne da ma dàkkul way añaan añaan yëpp mm-hmm. sa ñëpp laat waxoon naan mooy koo xam ni ko yàlla def neexu ko mm-hmm. <laughs> woon na sëñ bi ñaar rek ñoo ko mm-hmm. ñoo ko ñoo fi am koo xam ne xamu ko ak koo xam ni ko yàlla def mooy ko añaan sëñ bi di ñaan fii am na fu naan salli salaatan kulla fasidin tasoo dari mhm. daati lii tuddi moo rek xasoo mhm. def naa commerçant itam mhm. bayit woowu yaakaar naa yàlla mën na cee def mu def barke ci ndax nee na ko na julli ci julli boo xam ne gépp yàq dana ko dana ko dana ko ñor di jëmee ko faneen ku dul man te da nga ma da ma saxalal nag bénéfice bu marché marché bénéfice boo xam lay doon mooy tanawu sama marché tanawu fu ma togg ci barkeb liggéey bi sëñ bi defee naa bayit woowu itam lu mot a fonk la salli salaatan kulla fasidin tasuux li xayri zaati li tuddi mu rif xasuux bila xurujin ma salaamin faayiqi li yajuudu abadan bila yaqiin salli salaatan kulla fasidin tasuux am na fi salli salaatan waahiri tukammilu mu jammilan wa baatani tujammilu mm. na nga julli ci julli goo xam ne da nga da nga da nga matal sama zaahir mm. ni nga ni nga defee sama baat mhm. sama baat ni mu waxee wa zahiri wa batini tawaafaqa mhm. nga xam ne ko sëñ Bay Jaxate taggi sëñ Tuubaa ne ko ku dul yow bu wergee setee gee tilim mhm. bu wet gee jotee sëkk yit gee di jot nga ne ko sa wet yëpp a set yow sa wet yëpp a jot bëggal barakallaahu sabkim amut nga xam ne sëñ Tuubaa moom ni biiram mel ni la bitim mel wa zahiri wa batini tawaafaqa loolu ñaan na ko fii boromam ñaan na boroom ne ko salli salaatan laa tazaalu fatiha abwaaba jannatin lana bil fatiha salli salaatan laa tazaalu fatiha abwaaba jannatin lana bil fatiha maa salaamin saarifin li xayrina abwaaba nihiraanin wa yubxi xayrana nanga julli ci yonent bi julli goo xam ne du dañ mukk duñu ubbi bunti aljanna kon day xasida nga xam ne kon foofu xasida gu gu guñ mën a jëlee ak taxe ndax loolu it da ko ci ñaan na ko ci biir صل صلاة لي تقول درك ما قد فاتني تملأ قلبي حكمة نعم جولي جون ربي جولي جو خم نلب كل مرة ون أنا نعم ما كنت دبعت له يا خم نكون بوجا ينور داري بوجا ده جانغ داري من نلب كل مرة ون تسد جولي جولي بحرك يعني كنت دبعت هاي سن سن من كوين يعني تبير تنين على وحنا نه وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كتبت سن برم دفن لوم بندرك دفن أنا ما كنت الله الله سن دبعت مي مي جولي جون جولي جو خم نيدانا كده كاري اللهم اغفر صل صلاة تملا مستملا السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع صلاة من يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش نغا جولي تيونت بي جولي كو خامنا داي ديم با ارس مو فيس كو دل فيس دل ارش بوكو دافه فيس دل يتام كرسي مانام دا فا جيكري نغا جولي جيلو كو خامنا داي فيس دل اسمان فيس دل سوف ييك با تا كاو مو فيس دل ارس فيس دل كرسي salaatu صلاة تملأ kenn xamul يا من خاد mu yem مع سلام يرتخي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتخي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش صل صلاة ما عملتم عملت ترفع للعرش والكرسي يا من انا جولي تي رنت بي جولي غو خامني دانا دانا ييك دم با عرش الكرسي مو لو فاجي كين دوتو كين دوكو دال ني نانغ لا دون ما صل على الذي صفاي تبي تفكري حتى غدو في العراق في العراق عسكري سونو بروم نغا جولي تي رنت بوبو مي خامني مو سلال سماي خلات واي نك يونت بيغا خامني مانام نانكو ديف ما مجونا مجونا لا تي mel na ab quartier la ci biir noonu mhm. bañ ba am noonu yóbboo yóbboo mën na ci seen biir kenn nit la waaye mujj na mel na ab quartier mhm. noonu la mhm. ko suñu borom woon doole ci kaw noonu yi noonu la wax na ko ci biir xasida gi nga xam ne ñibbisee la la wane loolu am na foofu salli salaatam bi salaamin yarqayaan lil arshi wal kursi fawran yurdiyaan euh, suñu borom na julli julli goo xam ne day yéeg ba ku as fawran nag léegi dem ba arasa kursi mm-hmm. nga xam ne xasida gi daal kawe gi mu kawe mm-hmm. moom daanaka mënee su ko misaal salli salaatan bi salaamin yarxayaan lil arsi wal kursi yurdiyaan ala alladi loo xilaami wal midaad mm-hmm. salli salaatan lii al qulub da nga julli julli goo xam da nga mën nooyalal xol yi waaw na ko am na fu mu وودا للصغار والكبار لمن له الصغار والكبار غور ني ماك نيك داو نييب سوتو نانيو ما لول تي تي تي نامالو سونو بوروم ميغا خاني مولين موم نعم، لوي دافي نا كون تك نتي سا بوت موم وخلا بان صلي صلاتك التي لا تخطر ببالغ بلاغه قد يسطر نغا جولي جولي غو خامني دو توك تي خلوم كين بام ديكو خلات باكاي بيت كون دامي نا صلات يي جولي سي بير نورو داري دو غيس تان نورو داري مانام نينا كو kenn nga julli ji kenn du ko kenn du ko mën a xalaat ba koy bind kenn du ko waaw ne kon noonu la noonu la xasida gi toll mm-hmm. da àgg ci salli salaatan bi salaamin lantiha laha wala lahu ala man intaha na nga julli ji julli goo xam ne du am fu muy yem mm-hmm. du am fu muy yem man doyam fenn dem ba ne ko ma ma ki nga xam ne ala man intaha sayri bihi ilayka wa huwa ahmadu mm-hmm. yaa man tawajjahtu lahu yaa samadu ne ko moom mi nga xam ne samab dox sama dox ci moom la jëm salli salaatan bi salaamin la intiha laha wa naalu ala man intaha sayri bi ilayka wa huwa ahmadu yaa man tawajjahtu loo yaa samadu ab doxam jeex na la ko waxee dem ba ne ko salli salaatan bi salaamin yaxludaan xuluda mulkika kulli yusaidaan day mel ne lu mu wax xeeb ko ne ko na nga julli ci yonent bi julli goo xam ne day day sax ni sax nguur gi di sax loolu la ko wax ni sax nguur gi di sax ni la julli gi sax ah ne sëñ Tuubaa loolu noonu la. te ma ne ko salli salaatan tajmaul xayraati muxjalatan دلائل الخيرات نغا جولي جولي كو خامني صاح داي غاتيال دلائل الخيرات صلي صلاه تنجم الخيرات مهجله دلائل الخيرات على الذي لي خال يوم الجمعه مالك مالي من وجمعه صلي صلاه تنجم الخيرات مهجله دلائل الخيرات على الذي لي خال يوم الجمعه مالك مالي من وجمعه ماغي دلائل الخيرات تيرا لا بون بندون سي صلاه النبي ماغي موم رك لا daanaka mm-hmm. waaye nee na o na nga na nga téere bii nag na gàccal laa ilu xayrat ci mm-hmm. mën a amee doo mm-hmm. ko mën a amee fenn ñaan yi mu ci ñaanit mel na na luñ nangu la boo delloo ci biir téere bi da da nga gis loolu ndax da ngay gis mu indiwee na bayit di ci ñaan dem ba ci kanam mu waxee noo xam day wane lam ñaanoon fay nangu la ci biir xasida lu mel ne lim ne wa allimil ahda anni indaka la indahum busharatun bi dimdika na nga xamal noonu yi ne na nga leen xamal yow ci sa bopp ne andu mak ñom man yow la andal ci yow la rek sama manam jittu mak ñom dara donte maa ngi ma ngi won ci seen biir mm. waye dara moy lim lim wax ci asiru mm. asiru mal abrara xiina asiru wa la ila anni wa sanna la ila anni ni hunaka asiru mm. da nga ñu defee nag suñu la bu japp te fekk man yalla la andal ak ñun ñu bax ni mu ne mu ne ko na nga xam andu mak ñom ñoom donte maa ngi ci seen biir waaye yow la andal ci biir qasida ge moy mu wane ne ñaan googu nangu ndax daf ne alimatil aadaau anni indaka la indahum bushara min jindika maanaam noonu yi xam nañu ne ànduma ak ñoom man ci ci ci ci yow ci yow laa nekk ba tey ci biir xasida gi dañ gis muy ñaan sunu borom ne ko na nga wattoo ci man alquran wa xafad wa yadi mhm. dem ba ca biir ko wa yadi wattoo nga ci man ci sama xol ak sama loxo wattoo nga ci alquran mhm. sunu borom wax ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu laafizuun mhm. na moo ko sëñ Tuubaa ñaan ko ne ko na nga ne ñaan googu nangu na wa jëmbi la nii liy jëbbi jëjjiti gis nga am na foo xam dafaa wax ne wam xobbihi qasdal laga li xatti mhm. yaa man maha maasa ani bil xatti sunu borom na nga na nga na nga fegal sama loxo njuumte Mm-hmm. lépp luy jumte ak i neen mm-hmm. na ko fekkal sama loxo bu mu am ci sama mbind fa saasa ba mu waxee bayit woowu ñaan ko mm-hmm. bayit ba mu ca teg rek mooy wane na ñaan nga nangu na ma xawta an yaqsida xattu yàlla xa yaa mun daa di nabi ballaxa fekkal nga sama sama sama sama loxo <laughs> xam ne ba tey dangay gis muy ñaan borom ne ko mm. nang ma may nang ma may ci ci yow sunu borom mm. ak ak ci alxuraan ak ci yonante bi loo xam ne kenn du ko am kenn du ko gis ak ku dul man wala yëpp ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأكون خيري ولياب ما لا يرى لخيري في الله والذكر وأزن خيري عليه صلى الله بتسليمي waaye bu mu nee ba ca biir mu wane na ñaan googu nangul ne kawwantali maa laa yuraa li xayri kaw fil qur'ani wa fil xayri wa fi nabiika wa abdika rasul man la bii tusul bi nga xay rasul ne ko na ma la ko ñaan may nga ma ko may nga ma may nga ma ci ci ci yow sa jëm may ma ci alxuraan may ma ci nante bi lo xamne ne mm-hmm. kenn ko gis ak kudul man mm-hmm. loolu lepp di woné kon dal né né né né nuru nooru may ni luñu nangula mm-hmm. ndax ñaan ci bir xasida gi ci bayit fa sansa bi xasida gi daan jax mo woné war né ñaan googu nangula woné né may nga may ma nangam lay wax dem ba ci mu ne am naa nangam waaw xam nga loolu xam nga wex ñaan aw bayit bay ba ca top ko na ñaan googu nangu nu wax ci wax mu wax mu la xaa laxaa qasta li ghali khatti yaa man ma maa ay bil haqq khasaasa mo né ma hawta an yaqsid xatti yàlla moom daal daa mel ne lu mu teg loxoom ñaan ko ba bind ko rek daa mel ne day am lu koy xamal ni ko daal li nga ñaan ma may nañ la ko mu jàllaat ci beneen waaw wali taqulu suula waqta talab mhm. li ma lay ñaan fas waxtu wa ma koy sàkkoo nga ma koy may mhm. lool lool lool noonu la santuwa gën kon kon kon bu ko ah. defee nag ah. xës rek sant yàlla mhm. sant na ci yàlla lu bari daana dana mat juróom-ñaar fukki yoon daanaka mi ngi ko tàmbale lakka sukuriya bi la kufran te ci biir xasida balaa boobu sax li ci mujj la waaye balaa ci biir xasida gi lépp da ngay gis ne mi ngi ci indi baati sant yàlla am na lakka sukuriya bi la kufran yi am na lakka sukuriya yi tegal na kon andi ci lu mat fukk ak ñaar fukk ak ñaar da ciy jublu da ciy junju da ciy junju fukki weer ak ñaar moo tax bañ jeexee mu soseel la ca mu soseel mu soseel la ca lakka sukuri rabbi min muharrami li xatma bil xijjati xatma xurum لك ذكوري ربي من محرمي لختم ذي الحجة ختم الحرم سكتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد لك ذكوري ربي من محرمي لختم ذي الحجة ختم الحرم سكتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد علي أه، شكرك اللهم شكرك اللهم ما لي سنت يا yow sama borom ndax sant naa la ci nangam sant naa la juróom-ñaari bay hmm. lam cay junj mooy juróom-ñaari hmm, fan hmm. nga xam ne dañ ndax ca seen biir dajaa sasale laka shukri alal ayyaami yaalal muxaalafati wal qiyaami kon bañ jeexee rek loolu la ci sasale nga xam ne kon mi ngi junj fee fukki weer ak ñaar di junj fee juróom-ñaari fan lépp ci sank suñu borom di ci indi itam ay baat léeg-léeg xasida gi amatul tënk waaye léegi day dem ba ci biir mu am mu andi tënk lu mel ne kun fa yakun kun fa yakun tënk na ko ci biir xasida bi ci ci ci ci ci arafikun faykun la jël ci njàlbeen gi tafaan tàmbale ko kafaan yal qaadi wal muqtadiru maa hazahu min al ada yal qadaru ba ca naza alil barakata al muqtadiru wala janabi yi lasa yanahu kadir loolu kun faykun dem na ba ci am na fi yoo xam ne it tënk na fa kazu rajabin akramani kazu rajab teral na ma tàmbale ko kitaaba rabbi innaka al kitaab man qaala fi kadalika al kitaab ba ca yaquuduni maaka yaa kitaabu man qaala fi kadalika al kitaab boo xoolee arab baat yooyu la ca la la ca tëgg kon daal xam naa bam noonu daal la toppee xasida gi ba ba ca mujj jërëjëf xam naa bu ñu ko toppee wax dëgg yàlla dina dina dina gudd te bëgg naa yi tamit ñu ñëw ci njariñ yi nekk ci biir xasida gi waaye balaay boobu dama gis euh, bayit woo xamante ni euh, dañ koy faral euh, di ko moomale Serigne saali wala ñu ko ci askanale wala yu mel noonu te bu ma déggee ni nga waxee dafa mel ne xasida gi du sore 1925 bi nga xamante ni ci moom la ko Serigne bi di taalif waaye wax waxabli al xilma saxiixa wal xamal assaaliha moo boobu dañoo wax ne mooy maanaam ñu koy askanale Serigne Saliou assaaliha lazi yukammilul amal بيد واو نوكو ديغي اك لان موكو لكل اك سيرن توبا شيخ صالح عدادي في الفنون يا واهب المصغر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاه لتصحي العلوم النافعات بك انك العليم مع سلام ليصحي العمل الصالح الذي يكمل العمل على الذي خط له مدادي ما خلال من خدا دادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال بيد ومبدا ظاهر سلمي تك ما يسون برم مغ مم ماي خام خام بو وير اك جيف جو باخ خام دانا دانا دانا موت لي مبين على علم النافع والعمل الصالح مو والادب المرضي موي موي ñetti ñetti ñetti man nga moy ñetti kenn yi seigne touba teg yoonu murit mhm. xam-xam bu bu am jariñ mhm. jëf ju baax and ak teggin kon loolu la fa ñaan borom xam-xam bu am jariñ ak mhm. jëf ju baax loolu mo bari wi tekki sëñ danay danay danay def danay waxe bayit muy am wax joom day am ñaari mala danay am xam nga lu mel ne lam wax ci wasilatu rubu laka mata biye bi shukurin warida, rida ya wasi'an waasian wasaata bi murtaba loolu ñëpp xam ne ne nuru na lool sëñ Murtada mhm. ndax ne ko yow maa ngi lay tuubal tuub ko am na ko sant ak ngërëm mhm. yow aji yaatal ji nga xam ne yaatalal nga ma ci Murtada mhm. boo seetee masal ko wax ci biir géej gi la ko tari wax na fa loolu bayit woo ma nga ca sëñ Murtada boo gisee fotoxaat yi mu def bitim réew foo dem fekk sëñ Tuubaa ni mu yaatal la sëñ Tuubaa da nga xam ne nuru na ko lool donte bi Murtada ji Mm-hmm. zaahir si moom la muy tekki mooy ci daraja yonent bi mm-hmm. loolu lañ koy déggee mm-hmm. waaye rek mën naa amee maanaam moom ba tey ba tey lii nga laaj ci bayit wi it lu mën a nekk mën naa amee maanaam nag jëf ju baax ndax doom ju baax doom doom ju baax man dana tudd jëf ju baax ndax dañoo gis ci alquran suñu borom tudde fa doom ju baaxut jëf ju baaxut nooxin doomam ja noox sayidna noox alayhi salaam suñu bof ne ko innahu amalun gayru saalih du jëf ju baax te doomam la kon doon la war a ne doom doom ju baax doon du jëf ju baax kon fii itam day mhm. day day na maanaa mhm. doon doonte nag moom li ma la wax rek dañ koy bàyyi ak sëriñ bi mbirum boppam la mhm. waaye lu lu lu lu mën a nekk la li ma lay waxee ci ci ci ñaari maanaay mbindum Sëriñ Tuubaa bi day feeñ ci mujj xam nga ñu ngi jeexal xasida gi fi mu jeexee mooy ablin nabiyil mabda'il xitaani abqa bushaaratin bi raxtitaani da foofu la nuuru daari mi jeexe dañ koy boole nag yeneen ñetti xasida yoo xam dañ leen di boole axmadu moo na yan yàllaahu yaa ahadu ak yaa Moustapha. Mhm. muuli muuli yëpp ñu nuuru dañ ciy boole ñetti xasaayit yooyu mootale ko mhm. waaye day mel ne fii la xasida gi yam mhm. donte amul subhaana rabbika rabbil izzati yooyu muy tëje tëjewu ko ko waaye na noo tegtaloo na fii la xasida gi yam liñ ciy tegtaloo mooy dañuy gis Sëñ Tuubaa tudd fii baatu mat xam nga euh, mabda il xitaan yi nga xam ne moom mottali yonante bi moom mottali yonante yi loolu lay tekki waaye day léeg-léeg mu waxe ko jublu ca yonante bi waaye jubluwaale ca matu xasidi mm-hmm. suñ tubaab dana koy def lu mm-hmm. mel ne boo demee ca ca ca jazbul qulub mm-hmm. wa an yaquuda linnabi fii abadin binnuxubi salaamayil muqarrabi binantihal wal maxtaj xitaam boobu wanaa na ne ane jul wa nga watal lu dul jeex waaye day day waale itam matu xasidi boo demee ca مطلب الفوزين واخنا كو بوليه بو حسن الختام عندك مج مج كو رافات موتلي كو رافات لا خاي نيان واي داي واخ ختام بوبو يتام داي وانا والي ما تقاس تخ بن بي لا جاتا خاص لي جيخ با تاي بو ديمي تي تي تي تي علاما خاص لي علاما بام ني لا داي ختاما بفوزين يوري بو داي ختام لا خاص لي جيخ با تي جالب مراخيب سيدنا محمد ختام من ارسلته كلام بهذا الزمن moom waxe xitam xiitam danaka daanaka yu néew la ci tek bam bam soppé bahar bi fukki bayit ak ñaar danaka hmm la ci tek da da xitay man wa ali wa sahbi wa xorli lim yaqaru da hazar na fi kulli zaman hmm bam ne sayidina muhammadan xitaay man arsaltakum kalam bi hada zaman wa alihi wa sahbihi wal taq alay dan nadama khariqan bihi yarja hmm fofu la jexi fukki bayit ak ñaar da sopp bayit yi ci fi la fële lor la fa ca tegaat da ga jex lolu moy wonane wane na itam nooru daare ni bam ne قبل النبي المبدا الختامي ابقى بشاره بلا اختتام لولا ما يوانا فوق القصيده يجي توب بوتي انا قصدك بكم لا احمد المغني انا قصدك بكم لا يا الله يا احد قصدك بكم لا يا سيدي يا مصطفى قصدك بكم لا بوكو دافا كون نجاري نين كو واخا نيو نيو تجي كو نجاري ني أه، لان لا نيو مانا جيلي اي نجاري ني ci qasida gi ak loy baxé tamit nak wa akhlu qasida ndax ñomit émission bi bu len bu len ñor la waaw xanaa euh, di leen baaxee di di di leen gën a dénk rek. Mhm. ñu delloo xasida ci seen cosaan. Mhm. cosaan yi mooy suñ suñ suñ Tuubaa def la ibaadatan laka wa xidmatan lahu. Mhm. boroom ne ko. xasida yi ma bind bind naa ay at. ala alladi lahu qilaani wal midaad muddata awaan bi xattan di sadaat. ibaadatan laka wa xidmatan lahu li wa si man alal war a faddala jaamu yàlla la jëm ci yow ab liggéeyal la jëm ci moom. lepp nak li wacc man alal war a mhm. dama ko def rek ngir jëmmi yàlla nga xani mo jël yonent bi tek ko ci kaw kon mhm. lool rek la ciosanu cosaanu moy liggey ngir yalla kon lool nañ ko ca delloo nañuy jang ngir yalla ak di ko yalla sunu borom mhm. bu ko def ak di di ni ko da waxe rek di di di di xajoo murid yi nañuy nañuy ci seen biir ndax seigne touba fam jaar yalla bay waxna ne wajhtu rabbi bi qilami wal midat wa bi siwaha wa hamani bi midat nee na jëflante na ak yàlla ci sama mbind waaye jëflante na ak yàlla ci leneen loolu sama mbind mhm. te leneen loola xamoo lu mu doon keneen mën na am ca loolu la nekk mhm. nekkul ci xasida waaye ca loolu la nekk mhm. kon kenn ku ne rek la mu nekk da nga jàpp ne sëñ Tuubaa jëflante borom lu mat a bàyyi xel la kon loolu ñoo ngi leen koy dénk bu baax di di di di di di leen kañ nag di leen kañ nit mënut a toog loxoy kese dëgg la kon boo góorgóorloo ba jëm ci li gën loolu moom la ci kan gannaaw bu ñu sant yàlla ci ndimbalam mhm. waaye itam daañu leen kañ bu baax leen soññ bu baax baax itam bu ko defee itam njariñ li bokk na ca am wax na ko ci biir mhm. wax na ci biir xasida gi ne wajal xurufaha bushaaratin tunir qalba alladi biha yusalli ya munir na nga def arafi xasida gi muy mbégte mu wax day leeru day leeral xoolub ki nga xam ne ci xasida gi lay jullee ci yonante bi fii mhm. jàng xasida gi nga xam def araf yi muy mbég moo xam day leeralub xolam وهنا وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطره خاطره واشرح صدره لان كيب كوي جانغ قصيده كي كوي جولي سي موي كوكاي جانغ نانغا نانغا جوبال خلاطه جوبال خلاطم نانغا اوبي اب دمنم يتا ليرال كو لو نيان نكو جيبال قصيده كي <clears throat> واخون ناتي نا فوفو لا ني جيهالي لو لو لو ري لو ماغ واخون نكو جيبال قصيده كي نيوان نا نورو داري ني جيمي قصيده كي ريك بارك بومو ناك بو نيت تيغون لو خامني غودني نا اب تخاوايا مو جوك تخاوتي xool ba fa bëtam yem mm-hmm. ñaari wàll yëpp nga xam day mel na ci ndànda fay-fay la taxaw xool ba fa bëtam yem ci ci wàll yëpp nee na lu faatu foofu parce que dëgg dana ko rab dañ ko faa tëj tëj ci gaal ne buñ ko tëjoon ci gaal fii mm-hmm. nit ki taxaw ci xool mm-hmm. ba fa bëtam wàll yëpp nee na ku faatu foofu parce ci diggante boobu bëtam bëtam àgg rek ku faatu parce que ko jànguñu ko nga xam da ko da koo teg noonu rek <laughs> loolu mu defee naa kenn xamul loolu nag ku xam sëñ Tuubaa fa mu toll borom da nga xam ne lu mën a xel surtout jamono yi nga xam ne moom mooy jamono yim sa sa rëkk rëkk rëkk ci borom radiyallahu taala anhu wa jazaahu anna xayra jazaa kon nag defe naa mënees na tëj barakallah jërëjëf loolu rek yaakaar naa ni doy na muy njëriñu xasida ndax loolu moo waxoon ne tamit ni lenn dong ku fi indi woon muy doon njariñul bindeef yi te fegal leen ëllëg euh, sawara yaakaar naa ni euh, bu ñu xoolee xasida Nuuru Daarayni yi nekk ci réew mi benn bu nekk gëndaloog sa morom ba ci bitim réew yaakaar naa xasida yi bu ñu jëlee leen ciy jël gars yi euh, murid yi lañ ciy liggéey yu mel noonu yaakaar naa ni kon Sëñ Tuubaa la mu waxoon ni rammu jaam yi rek moo ko fi indi yaakaar naa teg na li nga xamante ni moom mooy matériel yi war pour mu mën a loola loola mën a am kon daal sëñ Abo wax dëgg yàlla bég nañ lool nag bég nañ lool ci jataay bi bëggoon nañ ko gën a xóotal waaye jataayu koor eh, ak yooyu xam naa sax duma la du ma du ma la wax dara ci koor gi wax dëgg yàlla <laughs> xanaa rek di jéggalu surtout mbokki tele téléspectateurs yi ñuy seetaan ak jataay bi ni mu demee ñu xam ne rek mbirum télé la waaye sëriñ bi moom suñu sëriñ la toggandoog ak moom ci kaw ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax eh, sëriñ bi ñu ngi koy jéggalu te di ko jéggalu taalibe yi rawatina waa lu xasida yi ndax ñoom dañuy bëgg it bu ñuy waxtaanee xasida yi ñu am nañu mel waaye nag jataay yi léeg Euh, day am nu muy bindoo ñu ngi koy jégalu bu baax a baax xanaa rek ma bàyyi la nga tàggoo ak mbokki téléspectateurs yi loolu ñu wax tàggoo bu du tàggoo ndax nag des na yeneen xasida te nii ma disee tamit ni nga waxee daa mel na euh, wax dëgg yàlla xasida yi yaa ngi ci yaa ngi ciy gëstu ndax ni ngay jógee ci bii dem ci bii ak yu mel noonu kon nag dinañ amaat yeneen jataay yoo xamante ni dañuy xoolaat yeneen xasida ni ko mbokk yi di di sàkkoo rek ñu ñu indiwaat ko ma bàyyi la nga tàggoo ak mbokk <laughs> sant sëriñ bi rek ndax sëñ moom ku doon ci mbiram dara moo la ci doonale mhm. kon kon liñ ci nuuru di ci nab na bi di ci doon dara ñoo ngi ko ñoo ngi ciy sant sëriñ bi ci biir ci biir cant boromam gi mhm. di leen sant yéen itam seen i ndax lii it wax dëgg bokk na ci li yonante bi waxoon ne nit ki bu faatoo jëfam yëpp day dog ba mu des ñett mhm. boole woon na ca xam-xam boo fi bàyyi ñu koy jëriñoo ndax xam nga lu luñ jël ci tale ñëpp di ko tasaare fa muy àgg yàlla rek moo ko mën a xam mhm. jëriñ loolu lépp nag kon noo ngi ñaan mu fekk leen ci mhm. amiin fekk ci jëwriñ ji nga xam ne itam moo mhm. taxawal lii di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéey bi di jëfeñ waxtu wu ne noo ngi sant bu baax di ñaan yàlla gën koo barkeel bu baax a baax a baax a baax ñu sant ñi nga àndal ñëpp sëñ sëñ sëñ sëñ Ousseynou sëñ Mbacke Mbodj euh, sëñ leen di sant bu baax a baax leen leen ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam kon nak mbokk yi gis ngeen tay ji rek eh, karaamatu ya di feñat na ci li nga xamanteni mom moy mooy ak serigne touba yi mu xamne manam suñu borom dal def na ay mbindam mu di kéemaan wa yaakaar ne jotaay buñ ci am rek day gëna a morom mam kon nak ñi ngi sant bu baax baax doon leen fatali rek ñi ngi si doon andal eh, serigne Abo Mbàkke mom serigne Basiru mor mom serigne mor Soxna mom serigne Mam mor Jaara mm, eh, mi nga xamanteni ni serigne bi ñoo bokk lepp waye nak di tamit dom ci Soxna Jabaara moom Cheikh Mahamadul Bachir moom Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yaakaar naa ne kooku war naa mën a wax ci xasida yi te lim ci wax it ku ne xam ne ab gëstu la bu wér boo xamante ne ñëpp mën nañ ci mën nañ ci jëriñu kon ñu ngi dellu di santaat bu baax sëriñ bi te di ko ñaanal suñu borom gën ko yàggal suñu borom gën la dëgëral defal la wér yokk sa xam-xam te defal la ay xéwal yu rëy yoo mën a liggéeyalee sëriñ bi ci ci ci diine ji ak ci xasida yi ci barkeb sëriñ Touba kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah yeneen i jataay ak yeneen i boromi xam-xam lépp jëm rek ci euh, mbindum sëriñ bi ak yi taalifam ñu ngi sant bu baax a baax ni ko sëriñ waxee équipe technique bi nga xamante ni ñooñu gunge woon ci njiital euh, sëriñ Mbacke Mbodj ñu feggoo woon ak Ousseynou ak euh, Jibril Khoule ak Ousmane Diouf di sant ñëpp di leen gërëm di leen allah ba beneen يون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما